ñu ngi jeexal sunu tournée bu ñu doon def ci fukki lycée ak ñaar yi nekk ci académie Rufisque ak ñetti IEF yi nekk ci académie de Rufisque liñ fi wuti woon mooy dañoo état bi dafa jël matériel teg ko sunu loxo ñu war ko dugal ci école yi pour élèves yi war a mën a tàmbaliwaat jàng mi le 2 ndax Covid bi ni muy demee ñu demee boo war a tàmbali ñu daal koy reporter ñu daal ne ah report boobu ñu def même bu fekkente ne pare woon nañu.

ñu xol lavoir nan lañ ko wara mëna disposer nan lañ ko wara mëna tégué ñi wara yor yor flash nan lañ war taxawé té loolu may def mom la sante IF ñu war ko def ci biir collège yi defe ko ci biir école élémentaire defe ko ci biir école privée yi ma xamné teungé en tout cas ci académie bi pare won nañ pour tambali ñang mi le 2 mais xam nga né nit ñi élan bi ñu pour pare ñu reporté ko ñu demal né banam mais ñun IA man nañu bayyi sax ñu tambali loolu dal na xel ba moo tax tey jii bu ma delloo sama bureau am na quelques détails rek ay ki naa ma dolli ma benn thermoflash dolli ma benn lavoir détails yoo xam ne même boo lañ ko dolli woon tey jii li ñu téye nii ak li ma gis ci terrain bi may na ma ma ne académie bi Rufisque buñ ne woon nañ tàmbali njàng mi suba le 13 pare nañ pour tàmbali.